gars yi ba léegi dañuy ñëw ci ëpp Sadio Mané bi ginnaaw bi Salah jabar yàgg Sadio Mané mi doogam soxna mu nekk nag loo xam ne Sénégal yëpp ci bëggoon ñoo ci bëgg laay wax donte leen mayaguñ ko mais presque officiel la ñu ñaanal yàlla na yàlla mosu ko ci cat xam naa nag Salah moom dana ko félicité balaa yàgg mais li wax lépp xaaral ko fii ci mos boo daañu leen koy indil mais ñun moom dañuy njëkk a wane bëgg te ak suñu kontaan ci loolu dañuy wax ne Sadio ndax ñoo doon demandé pourquoi Sadio takkul soxna pourquoi Sadio takkul soxna kon tey bu dee war a takk soxna kon feet la ñun dañu ko war a feetu waaw war a ci gis-gis moo tax ñuy waxee nii quoi dañ cey bëgg nag bu baax a baax a baax euh, di ñaan yàlla Sadio Mané yàlla yàlla motu lépp rek te mos ko cat ndax cat moom lu yàqu ne moo ko yàqal tam nañ yaakaar bu baax Sadio moom incha allah lépp day réussir ci barke Cheikh ci barke euh, euh, mag ñi ne ci réew mi ndax Sadio moom def na ci réew mi dañuy wax ne sóor la mais nag euh, waneen exemple ñëpp bëgg nañu doom bi dañoo wax ne at toujours rek nit ñaare bu nekkee ci tubaab bi di football rek siste beeg yooyu day changé mais Sadio moom waaye na man changé wu ma waaye na man mm, Sénégal cent pour cent la kon nag loolu euh, ñëpp ci biir daal ñëpp a ngi koy ñaar jàmm bu baax te ñaan gi nag ñëpp la war waaw du ñu képp la war nañ ko bàyyi xel bu baax nit ñëpp ñoo war a ñaanal Sadio Mané lii nekk loo xam ne réussite totale la ci am ñu ko bëggee en cent pour cent am na ci yaakaar bu baax a baax